asalaamualeykum Sénégal Macky Sall gis nga nit balaa ngaa xam nit ku la bugga nga am problème nga dugg si jafe-jafe Macky Sall yàlla ak yow derewo tuurugut Gambi Macky Sall yàlla ak yow kenn deeyut Gambi Yaya Jammeh fii la toog mu ne du dem waaye yàlla ak yow kon Macky Sall ñu ne nit doo xam ku la bugga ba nga dugg si jafe-jafe ba jun duggoon na si jafe-jafe waaye yàlla ak yow Macky Sall yaa taxaw nga saragal ñu nga woon Gambia ne man Sénégal ak Gambia yëpp benn lañ ma gisee la ko dem saragal la yàlla ak yow dere dere tuuruwul Gambi yàlla ak yow bal pam-pam benn Gambi kon nag ma fi man maa ngi saragal man de fu ma nekka fii man damaa célébrer man dama fi nekk di célébrer parce que xam naa ne Macky yàlla falal na la ba pare su ma peetaaw ñoo ma ko woon kon Macky bii moom yaa ko moom te duma ko boolee kenn waaw bi moom maa la ko may si xol bu seeda ma fi bu leen faale de ay bojo bojo leen déglul bii nañ dem exact san mu ngi nii waaye ah ne amul morom ñoo yaa tax ba takku jàll ñoo jox ma fi waay wallahi Macky rek Macky rek wallahi si Macky si Macky tẹ̀lé ìdánimúra. Wallahi don't juune ku ñëwut yaa bokkut waaw ku fi ñëwut yaa bokkut Macky doo juune maa ko wax wallahi doo juune sa ngangaar yi jërëjëf waay maa la bëgg a a